Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen dalal seen chaîne chaîne bi nga xamante ni chaîne ñëpp la muy chaîne boo xam ne dañ bépp xam-xam boo xamante ne nii euh, am nañ ko moo xam muy man moo xam muy yéen ndaxte partage bi moom dafa yaatu ku nekk rek mën na see def participation maanaam nit am xam-xamam ñëw euh, bëgg koo séddoo fii nii am nañu si ba dañ may woo naan ma jëlal lii indi ko si YouTube bi baaxee ko doomi aadama ay nit ñu baax ñu sell ay kilifa ñu ñuy seetaan fii macha allah te ñu ngi kontaan tey nag comme li mu leen ko waxee rek damaa ñëw indil leen lu baax lool surtout ñi nga xam ne ñu ngi dund ay faru rab wala coro rab wala seytaane wala dëmmu jinne yàqu-yàqu xam nga nee naa leen démb waxoon naa ne leen. kaaraange dafa dafa jiitu si lépp defar sa yaram dafa jiitu si lépp balaa nga naan naan ba nga fay nekk balaa ngay tal bëggante balaa ngay tal euh, tukki balaa ngay tal euh, liggéey balaa ngay tal am am di def dara da ngay samp sa bopp ba pare nga xam ne loolu boo ko amee dara du ko mën a ñoo yàq kon dee leen ko bàyyi xel su ma leen joxee yenn yi di si sonn de leen bu leen ko négliger dégg ngeen lii nii dama si sonn am ko te ki ko jox wax dëgg neex yàlla xam naa ne am na tam fuma fuma fu ma am ko toll jox na ma ko man maa ngi ñëw joxaat leen ko itam mu jëriñ leen jëriñu ñun ñëpp de ngeen muy lu jafe waaye nag naa leen jox secret bi muy euh, dunqutan ak garab ki euh, li nga gis ma téye nii ñu koy wax euh, rab sooy rab sooy laaka naa ne ñu bëri dañoo ko xàmmee lii nii waxumal dara waaye lu mu def nit. kenn xamul nu toll li yor ko sa kër rek dafa baax léegi nag ñi nga xam ne ñu ngi am ay jafe-jafe li ma fi cité lépp nii li ma fi wax nii lépp lépp lépp lépp lu jëm si wàllu euh, rab jinne am foro rab wala coro rab xam ne parfois sëy sax ñoom ñoo koy yàq parfois da ngay gis nga jékki-jékki yaa sa jëkkër du ngeen meleti neen waaw te ñu ñëpp ko am ñëpp dañu am àndandoo waaye da si am yu xaw a yéeme am ñu si xaw a doy waar moo tax parfois bu la ko yàlla defee am na si yoo xam ne sax si jaaru lañ koy def surtout surtout côté kaaraange moom lii moom amul lu ko si duñ la jege fenn duñ la jege fen fen mais nag tay bi mu leen jox mooy da ngeen di jël dunq yi dunq tan yi ak rab sooy boobu noonu mooy li ngeen gis nii may laal moom ngeen di boole dégg nga. ñoom ñaar ngay boole fereje ko da ngeen koy fereje ba nekk ba mu daal bu ko defee ngeen koy suuroo sa guddi balaa nga tëdd ak boo xëyee suba teel soo ko mën a def suba teel nga def ko si journée waaye chaque jour ñaari yoon doy na si sëkk ndax sinon dafay ëpp ñaari yoon rek wax naa ne leen dañ koy def si jaaro waaw su côté kaaraange boobu moom maa da day taari moom boobu moom moom nit yor ko rek moom war naa sax moom bu tëddee mën naa nelaw waaw. waaye nag mi ngi man yor naa si lu bari waaw donc yi nii góorgóor neen ba yor si lu bari góorgóor neen leetam ba yor si ndaxte lépp loo xam ne si ni xam-xam la rek te mu jafe boo ko wut da nga lu bari te man mi leen di jox lii parfois damay pare nit na ma dama kaa bëgg maa bëgg nga jox ma si kon nag du ma mën dara lu dul rek su ma ko amee denc ko kon képp ko soxla bu ngeen ko bëggee nag woo ma kenn pour mu ñëw jox ko waaye bu ngeen ko bëggee itam dem leen si marché bi wala ngeen dem fi ngeen ko mën a utee ngeen utee ju ko fa waaye ku ko soxla nag bu ma contacter dinaa fexe du may def ba ngeen mën see jot ndaxte man toujours damay waxtaanee yéen di la wax ne leen ñun dimbalante moo fi nekk man ñu may gën a woo ñu si gën a bëri xam neen ma xam neen sama kaddu du ma waxee fii si YouTube bi di waxee feneen neneen waaw dimbalante rek moo ñu tax a jóg jàppalante ak yéen waaw kon ñu ngi yem fii dina jox di daje suba jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.